moom sax moo def li nga xamante mooy déclaration ci ab poste muy xamle ni je suis convoqué aujourd'hui à la brigade de Faidherbe moom tamit mi ngi xamle ni tamit la peur est un poison qui tue l'âme Bamba loolu la Ndeye Ndack wax mu mel ne arrestation yi euh, mi ngi wéy di continuer te ñu ngi ngi toog di waxtaanee li nga xamante ne mooy jàmm war a ñëwaat ci réew mi ñëwaat di euh, di arrêté euh, di yokkaat li nga xamante ne mooy arrestation yi. waaw peut-être information yi nga xam ne jot nañu ko mooy euh, dafa am vidéo boo xam ne daf ko defoon je pense c'est fële ca 2STV euh, la woon et mm-hmm. donc c'est à propos de ça la ko dal di convoqué donc on espère que peut-être enquête kese la bu ñu ko enquêté laaj ko dal di ci tontu euh, dinañu ko dal di teggi loxo dinañu ko dal di libéré mu dal di doxi ses activités parce que aussi il faudra reconnaître que tey Sénégal dañu bëgg dem ba tey ku ànd ak Ousmane Sonko rek dañu jàpp ne délit la ku jàpp ak Ousmane Sonko démocratie war a am ci réew waaye démocratie également le droit d'appartenir à quelqu'un également dafa war a am mooy ni ku nekk it am na droit nga far fu la neex mm-hmm. euh, tout en respectant li nga xam ne rek moo di euh, lu jëm ci wàllum les droits et règlements mm-hmm. mais je pense que Ndeye Ndack depuis très longtemps aussi peut-être na mm-hmm. féeteem ak Ousmane Sonko gis nañ ko sax kerek bokkoon na bokkoon na aussi kerek ci ñi nga xam ne ñu doon dem di seeti ki nga xam ne

dañu toll euh, ci moment boo xam ne ñëpp ñu ngi naan nañu euh, def bal à maanaam nañu mm-hmm. indi jàmm ak salaam donc convocation yi du def loolu rek gën a lëndëmal wala a mm-hmm. indi li nga xam ne wala gën meral li nga xam ne moo di askanu Sénégal parce que mbir aussi am na fu mu toll am na foo xam ne da nga koy passé mu jàll mais bu fekkee ne ku def live ku wax nga dem convoqué gendarmerie kaay loo def pour nga nga ndax lii pourquoi nga wax le alors que tey ci beneen wàll gi am nañu toog ne Ousmane Sonko bu ñëw dina dajale 500 jeunes dem jëli ko c'est un ministre de la République am na ñuy toog toogoon fii wax ne Ousmane Sonko dafa violé Mame Mbaye toog na fii ne Ousmane Sonko yor naa ay vidéo bu génnewul ay preuve dinaa teg vidéo yi mais tey justice boobee yenn askanu Sénégal wala ñu ci ëpp dañuy jàpp ne justice boobee tëddeewut njaaxanaay dafa indi jafe-jafe parce que bu fekkee da nga ànd ak Ousmane Sonko lépp loo def dañ lay jàpp ku mel ni Diop Taïf ñu ne lan la mm. ko tegee loxo mu ngi ci kaso gi ba léegi mm. ak ñeneen ak ñeneen aussi ñi nga xam ne teg nañ leen loxo après doo comprendre tey Ousmane Diagne lan lañ ko fi tegee woon loxo nee benn emoji boo xam daf ko partagé di ree mm. loolu lañ ko tegee woon faudra ñuy surpasser ci yenn tey ku mel ni sëñ Bara kooku lan la mënoon def ak ba ñuy dem naa appel à l'insurrection et ba kay jàpp euh, ba mm-hmm. Mm-hmm. aussi pour man jàpp naa ne jarul ñuy exercer yenn ci ay violence mm-hmm. donc soxla ni dafa am foo xam ne bu fa jaaree war nañ na mën a teg loxo te du am benn jafe-jafe Pape Alioune bi ñu koy jàpp gis nga ni ñu ko jàppee dañ ko fekk ci euh, vulgarisateur muy defar otoom noonu lañ ko buubee mm-hmm. yóbbu bi àggee téléphone am ko fi et cetera sëñ Baara dégg naa téléphone ak téléphone jabaram la mm-hmm. naan ubbi leen ñu xool et cetera Ousmane Sonko tey téléphone ñu ngi ko téye mm-hmm. ça veut dire que dañuy dem ba dafa am singri boo xam ne am na ci wala dañuy jàpp ni ki pour ut loo xam ne dinañ ko ko euh, teg ko te tey xam nga ñu naan plus de 500 détenus ñu ngi ci kaso yi yi yegg si plus condition conditions ne sont pas du tout réunies et je pense que nit bu kasoo li ko tax a jóg mooy nit ki def erreur nga yóbbu ko fa pour nga tàggataat ko corriger ko mm-hmm. tey boo demee ay États-Unis dem ay France et tout donc askan bi sax parfois dañuy a dem kaso nga xam ne moo di ki nga xam ne moo di euh, Aliou Sané mm-hmm. nee dans les gardes à vue tu vois yoo xam ne c'est énorme mm-hmm. ay xale yoo xam ne jàpp nañ leen te laalawuñ jegewuñ ba ñëwee rek juste bi ne mandat dépôt mais nit aussi loo xam ne yërmande war na mën a dox ñu gën libéré nañu rien que pour apaiser li nga xam ne mooy tension bi mm. et j'espère que peut waxtaan wi nga xam ne dox na ci diggante président de la République ak la xalifa général des mourides mm. du ñàkk ne fekk fan yu néew du ñàkk ne dinañ commencé gis ay pas yoo xam ne état bi dina ko doxal te bi ci njëkk nag mooy ñu libérer les détenus politiques mm. ci ñooñu am na ñoo xam ne dañu war a def bac ci ñooñu am na ñoo xam ne c'est des enseignants ci ñooñu am na ñoo xam ne ay liggéeykat ñu leen ku mu ngi fii di liggéey mais kooku lan lañ ci teg loxo ba di ko di ko yàqal di gàllankoor ay liggéeyam et tout mais am na loo xam ne aussi war na mën a ñàkk takkal ko sax bracelet électronique mu dem liggéey moom moo tane mais yóbbu ko ci kaso téye ko foofu di ko dundal ci condition yoo xam ne yu doy wàll te nit dof depuis at depuis ay weer a ngi nii mu ci kaso gi te mm. pourtant toog na jéggalu ne maa ngi tuub ci kàddu yi ma wax te pourtant am nañu ñu ngi fii ci dëkk bi di toog ci plateau yi dem ci télévision yi leen invité ñuy wax donc réew nag moo euh, ñu gis ki nga xamante ni mooy euh, Ndeye Ndack Touré moom tamit muy ngi def ab publication euh, di xam ne tag teg nañ ko dañ koy dañ kaa convoqué fële ca gendarmerie bu bu bu Faidherbe mu mel ni nag ginnaaw Cheikh Bara Ndiaye instant bi nag farfee na day mujjee nekk délit mel ni liberté d'expression aussi amatul ndax tamit vidéo bi nga xam ne dañ ko ko dañ ko da ko def fële ca 2STV looloo war a peut-être mu nekk li nga xamante moom moom lañ koy toppee pour convoqué ko waaw non xam nga euh, jàmm ji nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan di ko bëgg. Mhm. Euh, à chaque fois la ñuy wax rek mais daam fu muy commencé. Mhm. fu muy commencé nag bokk na ci euh, nit ñi ñu jàpp leen ñëpp ñu bàyyi leen ñu ñibbi parce que kaso du du du du pour ñëpp kaso dama jàpp ne pour délinquants yi la ak ñi nga xamante ni ay faiseurs de malais lañ. Mhm. ak ñi nga xamante ni yàlla da leen a nattu mais tey bu ñu xoolee dama bu ñu xoolee li nga xamante ni rek moom lañ ko moom mooy. même bu fekkan dañuy jàpp ay nit corriger leen pare ñu dem ñibbiwaat seen kër laa mën nañ d'accord mais da nga fay jàpp ni tii fa lu toll ci ay weeri weer du am suivi du am euh, projet du am dara dañu jékki-jékki rek ñu bàyyi ko tey ñaata nit ñoo fi mën génn ne <coughs> bàlle na bu ñu waxee ñoom nombre de mandat dépôt bi ñu am mhm. danga naan noonoo bu ñu waxee aussi lépp li ñu leen jàpp ci yóbbu leen du ñu xam lu ñu leen toppee ñu bàyyiwaat leen ñu dem ñibbi mhm. te yooyu yëpp dama jàpp ne euh, bëgg a teg ni fitna la wala boog bëgg koo xupputal ba tax mu ragal te day am day am loo xamante ni dafa am ñoo xamante ni ils sont nés dans l'adversité ñooñu mënoo wax a wax ala kulli aali ba nga leen a xoqatal wala nga wax a wax ba mën a tax ñoom ñu deltu ginnaaw ci lu nekk parce que ki nga xamante ni Sénégal la gëm ki nga xam xamante ni dëkkam la gëm kooku day mu dee sax ci xeexal dëkkam moo koy gënal kenn yi nga koy teg benn affaire ba tax muy deltu ginnaaw te xam na ñoo xamante ni dañuy gore ba ke dañuy dee mm-hmm. yow boo xoolee tey euh, Euh, nga jël nga jël nga dem Burkina Faso. Mhm. Thomas Sankara à un moment donné dafa génn. Mhm. bi nga xam ni attaqué nañ ko pour war koo rey mu ne ñooñ dugg leen ci biir man lañ soxla pour bañ rek ñu bombardé ay yeneen bakkan di yoo xamante ni xañ na yittewu leen. Mhm. moom lañ soxla mu dem joxe boppam ñu daal di ko rey dama jàpp na kon tey bëgg googee mu bëgg réewam am na ñoo xamante ni tey ay Sénégal ay ndaw góor comme jigéen. bëgg bu boobu lañ bëgg seen Sénégal bi nii parce xam nañ li leen Sénégal jural mhm. xam nañ aussi li nga xamante ni ñu ngi koy gis ci Sénégal mhm. te xam ne rek juste bu ñu aman benn njiit boo xamante ni njiit bu mat homme d'état bu ñu amoon benn njiit boo xamante ni njiit bu mën a muñ te yaatal te mën a concentré wu ci ay objectif la mhm. dama jàpp ne su boobaa ñun ñëpp dinañ dem ba jariñu ci li nga xamante ni moom mooy suñu dëkk parce que Sénégal tey yàlla am na lu fi dëxëñ loo xamante ni ker bu ñu demee ba yàlla nattoo ñu benn président boo xamante nii dafay mel ni euh, Erdogan ci ab mm. taxawaay mm-hmm. waaye tamit dafay mel ni képp koo xamante ni nag sa dëkk moom moo la ñor sa ay intérêt dëkk moom nga jiital ci lépp loo xamante ni danga koy mën a def mm-hmm. jàpp naa ne Sénégal dinañ taqoo ak lii di chômage mm-hmm. dinañ taqoo tamit ak lii di bépp secteur boo xamante ni dafay nekk dina gën a jëm kanam lool nag pour mu am il faut ay nit taxaw xeex il faut duñu wax sax ay bakkan war da ñaanuñu ko yàlla mais dina jar loo xamante ni képp koo xamante ni da nga xonet mm. wala képp koo xamante ni dëkk bi rek ñoru la da nga nekk di tourisé di nga dellu ginnaaw parce que dafa laaj ay ay ay chemin yoo xamante ni nga war koo franchir dafa laaj ay obstacle yoo xamante ni dafa nekk ci kanam nga war koo franchir te yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni bu la jarul dëgg da ngay dellu ginnaaw parce que tey boo xoolee amul benn dëkk boo xamante ni dafa jékki-jékki neex te amul fu mu jaar mm. foofu mu jaar nag moom mooy xañ na tey ñu bëri dañoo jàpp ne mbir mi Ousmane Sonko la mais mbir mi jàpp mën donc dama jàpp ne jeunesse bi ñoom ñoo éveillé wu jeunesse bi ñoom ñoo seen xel moom moo mature ci li nga xam te ni am na ndax lan moo leen ko may mm-hmm. mooy que ni li ñu wax que ni le monde est devenu une village tax na ba ñoom ñu gis ne lépp loo xam te ni mu nga am ci yeneen dëkk yi comme développement pourquoi pas ñun mënuñu ko am te la leen di développé ñu ci bëri fii lañ koy jëlee la leen ne bu doon éliminer France du jar mu koy tiire ay bomb waak yu demee noonu mais juste rek na ko a séparé ak di ko ñun a ne borom am nañ ko façon pétrole bi nga xam ni am nañ ko façon diamant bi nga xam ni am nañ ko toog lépp lu ressource daanaka mën naa ne am nañ ko bu boobaa nag ndaw yi bu demee ba ñor bu ñu demee ba xam ne kat carrément mm. ci xam-xam ak ci yëpp xam nañ ne lii moo mën a développer dëkk su boobaa dañuy imposer à ce que état bu fi mën nekk nga liggéey boo mënul keneen dem mm. dama jàpp ne foofu lañ toll mais su boobaa nag bu leen di jàpp ka jàppaat xañ na dina leen am ñu wàññi waaye nag dañ am ñoo xamante nii dañuy continuer di gore di xeex ndax bu ñu demee ba jigéen mën a porter combat boo xamante nii combat patriotique la a la pour askanam ëllëg kooku ba jàpp ne ab soññewaat la ci képp koo xam ne da ngay takk tubay di góor pour nga xam ne dëkk moom moo gën a ñor citoyen ya fa nekk parce que dëkk ña ko tabax ba mu ne ñumm bu dul dara sax au moins même yow boo ko xeexu li may wax sa jour rek war nga mën a sax jóg jël sa dàll daal dox am ñaxtu ci li nga xam te ni moom moo am au moins sax pour nga mën a rendre euh, hommage ak ñi nga xam te ñoom ñooy les pères fondateurs. Mm-hmm. alors maa ngi jot euh, xibaar Yolande Camara moom ma envoyé benn texte di wax li nga xamante ni mooy état de santé euh, kii di Papa Abdoulaye Touré nekk chargé de communication de SNP.